mbokk yi asalaamaaleykum daal di nag jàmm ci xibaar yi ci Thiès info point com bokk ci li ci gën a fës ki ñu faatoon nag fële ci stade Ndiaw koddu euh, di wuyoo ci turu euh, di wuyoo ci turu Ngumba Ndiaye nag ki ko faatoon daal di nañ koy teg loxo euh, police bu arrondissement bu Thiès moo ko daal di teg loxo muy wuyoo ci Khadim Ahmadou Bamba Ngom daañu si dikk nag gën ko yaatal ci biir xibaar yi waaye itam leneen muy xale bu jigéen bi nga xam ne moo doon jàngee ci lycée Malick Sy di wuyoo ci turu Binta Diallo. réeroon ci jamono yi ñu dikkoon euh, jamono yi ñu weesu nag daal dinañ koy euh, feeñ mu dellu ci waat ci ay njabootam euh, loola itam dinañ ci dikk faram fàcce ko ci biir xibaar yi dinañu dem fële ci xombol xam ngeen nag ki nga xam ne fa la fekk baax di waa xel Xelkom Baas ñoom nag daal dinañuy sóob seen loxo ci jàppandalu askan wi fële ci njeen sirax jàppale ñi nga xam ne ñooy askan fa dëkk ci ceeb ak diwlin loole daañ ci ñëw moom ci biir xibaar yi dikk ceek kaddu ki nga xam ne moo di sous bu arrondissement bu Thiénaba mbokk internet info lii lee moo di ponk xibaar yi faram-fàcce gi ne lay doon. dellu nuyu leen jaajafa leen ci ànd beeg seen programme comme ni ñu ko waxee nag ci bopp xibaar yi Ngumba Ndiaye mi nga xam ne rek dañ ko faatoon fële ci diwaanu Diamaguène euh, Hersent ci stade Ndiaw koddu ki jëfoon jëf ji ni mel nag muy woo ci turu Ahmadou Bamba Ngom euh, moom rek moo daal di woon jëf-jëf ju ni mel nag police bu arrondissement daal di na koy teg loxo euh, foofe ca diwaanu Hersent la ñu ko tegee loxo moom moo di Xaadim Ngom nga xam ne jëf ju ni mel daal di woon faat Ngumba njaay ginnaaw rek jàmmaarloo ñu amaloon yu ñu amee woon foofee ci stade Ndiaw Macodou ci fan yu ñu génn ngeen ko gisoon ko nag ci info thiesinfo.com moom moomee daal di nañ koy teg loxo ñuy wax ci leneen ak soxna si nga xam ne rek moo di élève bi nekkoon ci lycée malik si moom it naka noonu ginnaaw bi nga xam ne rek ay jamono ngi nii ci ginnaaw mu daal di réer ak njabootam kenn xamul nag fan la nekkoon moom nag daal nañ Euh, gisaat rek ba mu delluwaat ci njabootam moom nag mu ngi doon wuyoo ci turu bint jàlloo euh, nekkoon euh, élève fële ca lycée Malick Sy delluwaat na ci ak njabootam ñu wax ci leneen jutali fa nga xam ne moo di diwaanu Xombol foofe nag ñi nga xam ne rek ñoo di kii moom Xelcom Basse daal di nay amal taxawaay bu am solo foofee ca Njeen Sirax jëkkati nag lu takko takku ci wàllu ceeb diwlin ak suukar ak xeet yu ñu mel ngir jàppale ko askan wa fa nekk ngir nag gën a sóob am ci xeex bi nga xam ne ci la ñuy xeex jàngoroy coronavirus euh, taxawaay boobee la moom moom njiital xel Xelcom Baas ñu teewlu ay kàddoom. fii fii nañ juddoo suñuy mbokk fi nekk bi président joxe ndigal daan entreprise yëpp nañ jàppale réew mi ndax feebar bi ndax activités yu bari wàññiku na ñun ñii bokk nañ ci suñuy activité wàññiku na waaye bi mu wàññikoo nag teewul li ñu doon faraatoo ko néew président bi mu laaj xaalis bi jëf laaju ko pour poosam da laaj pour askan wi ci dee da koy pour askan wi war koo séddale ñu xalaat ne fii nañ juddoo fii nañ yaroo ñu ne nañ ko fi indi ndax xalaat naa suñu mbokk den ko aajowoo ca béy ca sawewu tàng luñ mën a am du ñu amoon ay milliards dëkk bii ñu nekk moo ñu gënal dëkk yëpp foofu nañ war a commencé ceeb bi 40 tonnes ceeb la 40 tonnes yi dañoo indi 31 tonnes indi ko fii pour waa dëkk bi am nañu ay bokk nag dakaar ñu nekk ñoo fa ak ñun te néew doole gi daa yaatu ci fépp ñu jël 9 tonnes pour séddale ko foofu bi ñu engagé woo pour def lii defuñu ko pour lenn dañuy joxe ay exemple ndax bari na niiw na waaye euh, suñu xel day nekk toujours ci village bi ak commune bi ak mbokk yi moo tax bi ñu ñu ne vraiment problème mu ndox am na fi ñu lu gën a rëy forage mënut am ci jëf yi ca ni nun war nañu waaye président la gën a war ak équipe bi muy liggéeyal te ñun ñëpp xam na ne jegeñ nañ président ci ndigalam ak ndigalu xalifa général de Mouride ndax lii dafa yaatu ndax li tax ñu joxe ndigal yëpp mooy dimbalante naam ci ñu fekkoon waaye feebar bu demee nii du ñëwee néew doole gi métti loo am lu nekk da nga koy engagé wu. ceeb bi ñu indi fii séddale bi du am benn problème ndax suñu moroom yi gor nañ ko jox ñu suñuy nawle ñu bokk ñoom deret kenn du ci def luñ koy xeebe kon moo tax vraiment ñu indi ko fii ci jàmm. duñ jógee fii dañ dem ci forage bi bën nañ ko ba ndox mi ñëw na leneen li ci des mooy def activités yi pour euh, Saturday bi kon daal ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm. di leen ñaanal. maire bu Ndiéyène Sirakh Fallou Fall moom it naka noonu daal dinay rafetlu taxawaay bi Xelcom baas am foofe ci diwaanu Xombol euh, jëf ju ni mel nag euh, mu jàpp ne rek kenn ku nekk moom la war a taxaw rawatina koo xam ne doomu dëkk ba la euh, ci jamono joo xam ne rek askan wi dañu laa soxla te ñu daa teewoo ci jàppandel ci noone nga xam ne rek na ko borom Xelcom Basse tamalee foofe ci diwaanu Ndiéyène Sirakh ñu teewlu jëraafu dëkk ba moom Fallou Fall. may remercier le directeur de Xelcom Basse ci turu la commune de Ndiéyène Sirakh ci turu population wu Njengom euh, mbokk la mais mbokk mu bokkoo ay bokkam la donc li ko yàlla wërsëgal mi ngi ko indi pour bokk ko ak ay bokkam monsieur le directeur général donc maa ngi lay remercier maa ngi lay ñaanal yàlla yàlla yokk la jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah bi ma agsee ci euh, bopp commune bi boobu communauté rural la euh, ma gaawantu indi fi ndox mi mais bi ma indee ndox mi muy normal Gora dafa ñëw dugal loxoom dugal ndox ci biir kër yi yëpp bi nga xamee ne nag dem nañu ba ay weer ci ginnaaw problème mu ndox am parce que xam nga euh, forage yi dañuy yenu lu ñu àttanul ñu jàppoon ne war nañu ko mën a régler ma ànd ak seneesu dëkk bi ngir nu régler ko ma jënd ay tiwo et et cetera nu gas pour régler ko mais yàlla dogal loola sottiwul alors ci la Gora jël nag euh, décision euh, ne ma day gas forage pour waa dëkk bi mën a am ndox donc ci loolu la la ñu waxtaanee gis ki nga xam ne moo war a gas forage bi pour mu gas forage bi ba yàlla sottal forage bi forage bi mi ngi ci 41 mètres 32 yëpp ndox la 11 yi rek moo amul ndox. sous-préfet bu arondissement bu Thiénaba daal di nay rafetlu nag taxawaay bu am solo boobee nga xam ne rek ci la Xelcom Bass euh, amal foofee nga xam ne moo di ci diwaanu si rax kàddu yi nag mu daal di ko yëkkati euh, ginnaaw ba mu rafetloo jëf ju nu mel ñu teewlu ay kàddoom. tey dañu ñëwoon fii si ceeb bu nga xam ni moom la sëñ góor a Ngom muy directeur u Xelcom moom la yëkkati jox ko ay mbokkam ceeb bi ñu xayma ko mu toll ci fanweeri tonne benn. du lu ndaw yemul ci ceeb bi mu boole ci diwlin 2500 litres boole ci madaar 2500 litres boole ci eau de javel 2500 litres li ñu sëñ Ngom bëgg a wax mooy benn set leen bu ngeen setee ba pare ngeen soog a lekk lii Ngom def du lu bees parce que ñun xam nañ taxawaayam ci réew mi gis nañ taxawaayam ci dëkk bi muy jàmbaar di doomu dëkk bi di koo xam ni waa dëkk bi dañ koy tiitaroo di ko sagoo ma ñëwoon en tant que sous-préfet arrondissement di ko jaajëfal di kontaan ci moom di kontaan ci taxawaayam di leen ñaan yéen it kenn ku nekk bu leen ci raxasu ak saabu ak lekk ceeb ni mu def na ngeen góorlu ba kenn ku nekk la nga yor mu néew mu bëri ay la indi ko nga xëpp ko ci gafaka gi ndaxte mbir mi encore une fois xeex bi xeexu ñëpp la dagg la barke yemul doole yemul mais bu kenn xeeb sa bopp donte di kàddu boo yëkkati la mën nga ko indi sa wàll bokk ci xeex bi feebar bi umpul kenn gaaw naa wàlle lëmbe na àddina ma dellu di fàttali li docteur yi di wax di ko fàttali waa arrondissement bi yëpp di ko fàttaliwaat encore ñi nuy seetaan dee leen raxas seen loxo fu ngeen toll ndox ak saabu jafewul boo toogee waxtu wu ne demal nga jël ndox ak saabu nga raxas sa loxo boo ko amulee boo amee gel hydroalcoolique jëlal nga raxas sa loxo booy génn jëlal masque nga takk bu fekkee ne yaa ngi wax ak nit fexeel ba li ma jege nii bu ma ko jegee na am au moins distance un mètre nangam nangam éviter les contacts ngeen bàyyi saafonte bi bàyyi dajaloo ci mbooloo yi di dajaloo ci grand place di wax wax yoo xam ne bariwul njëriñ amul benn njëriñ. jàngoro nga fay jële encore une fois maa ngi ñaan kenn ku nekk li nga xam ni moom la docteur yi wax nañu sàmmonte ak loolu. mbokk yi jërë ngeen jëf lii leen moo fi gënoon a fës ci xibaar ki leen ko doon faram-fàccee di seen bokk Ahmadou li ma fegoo nag Adama Ndiaye ci wàllu xarale gi cant ngërëm ñeen na leen jox leen rendez-vous beneen yoon jërë ngeen jëf.